yàlla yàlla miy maye ndam ku am dëgg rek yàlla na ko yàlla teg sa kaw. tàmbali dossier bi mu mel ne ñoo ngi di soog a gis ngeen génn. waaw xam nga lu tax ñuy soog a gis ñun dañuy wuyoo ndigal di jëfee ndigal. ndigalu kan suñu ndigaluy waajur la ñuy jëfee moo ñu xanaa moom tey moo ñu jox pour ñu ñëw teew kon dañuy teew ñu doon dugg nag ci réseaux sociaux yi di wax ci aji xamuñu ci at yi dara man mii maa bot aji aji 83 la. l'an 2003 la judd sa sa 3 l'an 2003 la judd man maa ko boot kon kooku xale bu ndaw la l'an 2003 l'an 2003 moom la judd xale bu ndaw la aji est-ce que yëgoon ngeen ni aji Sarr mi ngi liggéey massage ñun buñ ko yëgoon ku ñu gis ñun xam nga lu ñu xam daal suñu doole man mii di wax ak yéen borom njaboot laa xale bu ndaw laa mais damaa njaboot sama jëkkër dafa gaañu baay maak ay doom ma tayal leen di liggéey ñun daal suñu doole la ñu xam liggéey yi ñëw toog ñun loolu la ñu xam fu ñu dëkk sax xam nañ ko loolu la ñu xam dañuy sant yàlla nag ba nga xam ne ñun du ñu saaga doomi jàmbur du ñu wax lu ñaaw du ñu def lu ñaaw ku ñu saaga nag bàyyi nañ la ak yàlla gis ma nit ku bon mooy xam moromu bu bon nit ku bon mooy man du ma tontu saaga du ma saaga kenn ndax man dañ maa yar fi ma war a yaree mais nag ñoo ngi sant yàlla de ca ci kaw ci kanam war na alxuraanu karim dañuy am ndam ñun ay taalibe est-ce que ñàkk yëg ni Adji Sarr doon na liggéey massage tekki wu ñu tam da ñu yëgoon moo ngi liggéey massage du ko liggéey ndax fekkul benn famille di liggéey massage. waaw est-ce que ni tamit da ngeen ko abandonné woon da ngeen ko bàyyi kenn masu ko abandonné barke alxuraan kenn masu ko abandonné ku ne ko abandonné day duul kenn masu ko abandonné. Vamos, vamos, vamos.